ETDR établissement Touba Darou Rahman mbokk yi kër gi ngeen di gis mu nekkoon ci état bu délabré nekkoon ci état bu doy mu amoon lu mu mel ba kenn ñemewu fa woon a dëkk yàlla dogal ñu ko ak waa établissement Touba Darou Rahman ñu xaatim ay contrat war a jublu nag ci réhabilitation boobu kër xoolal ma ni kër gi meloon laataa mu yegg ci ci loxo établissement Touba Darou Rahman mbokk yi du gis ngeen établissement Touba Darou di yëngu ci wàllum tabax kër bi ñu leen joxee kër gi ni kër gi meloon ak bi ñu paree ci kër gi ni kër gi mujjee mel mu taaru loolu ba wute sax ak na mu meloon mbokk yi nii rek la ko waa ETDR di defee ci liggéey yëpp bu fekkee da nga am sa terrain bëgg am kër gu yees ETDR dina ko defar ba mu baax jox la sa ay caabi bu fekkee ni sa kër aussi moo soxla réhabilitation ETDR ñëw defaral la ko ba mu yemb lépp lu jëm ci wàllu kër muy wàllu carreau plomberie électricité lépp ñoo la koy defal lépp lu ngeen waxtaanee ba juboo ETDR dina la ko defal ñi ngi nekk fii ci Pikine ci technopole bi ci yoonu arène nationale bi villa numéro 406 wala ngeen wooñu ci suñu numéro de téléphone muy le 77 575 50 25 wala 33 824 57 43 ku bëgg ci kër yu dernière génération yi kër yu bakkani yi kër yu noflaay yi tawal gaaw seeti waa ETDR établissement Touba Darou Rahman taxaw ak man du taxawaalu man musuma congu mbër benn congu te jeexul. mais pour jàpp nga ni Dour Sané mi naan wala man yow gëmoo loolu de. xanaa déggoo li ma la wax de moom ñi ko mais dama ne la moom dafa nul mom amul benn clé lenn kese la mën nga song ko mu faqat la bu faqat bi rëccee day taxawaat di la xool. li muy bëri mbapat sax da lay génnee par point yi day mat si niil par point la lay génnee wala nga jaayu ba jeexal yow mu daan la te xam nga ne ku mat 200 kilos taxaw ci kiiw gi tamit nga ne da nga koy jaay doole par force. Mhm. loolu mënut a nekk. mais bi tamit bu ko bàyyi woon dinaa ko dóora mu dee. barke boobu xol bi jóg na arbitre bi ko bàyyi woon. Ah, ah. dinaa ko dóor ba mu dee. moom arbitre bi. non ban arbitre bi waaye mbër mi nga naan arbitre bi dinaa fi nekk di fekk arbitre. ko ku yoo xamante ne moo gis nañ sax moo ko jooyloo ku yooyu nga ko dóor ndax dégg nañ mu ne dangeen ko bëggoon a merloo mais ko dóor koon ñàkk yóbbaale ko ah, yàq yooyu mënu koon barke alxuraan yow maa ngi lay song boo gisee nag dernier song bi li tax ma arrière ah. ba ma demee jëli tànk bi dafa déplacé tànk bi bëgg ma teg ko am hmm. te foofu noonu bu deful benn réaction man mun naa jumloo sama bopp parce que laa ma jox ma ne préparé wu ko musuma ci entraîné defuma ci dara feebar di tëdd hôpital bañ ne suba la làmb ji koo xamee ne mort vivant la yow yaa ngi taxaw ci géew gi mënoo ci mën dara puusoo paasoo xeexoo dumawoo defoo dara luy neexal làmb ji mais vraiment nañu wax na dëgg bu doon dudd moo ma dàq ma génn làmb ji mais lépp man maa génne sama bopp ñaari avertissement yi maa génne sama bopp comme ni ko gars yi waxee xam nga macha allah mais na ne làmb ji avant ngeen bëri na hmm. na ne làmb bu jeexee tey jàpp ba làmb ji jàll lan la CNG wax ci nga xamante ni ñàkk teewam ci signature ñàkk sol blouson yooyu loolu ay waxu caaxaan la contrat yi ma signé woon man dem naa ci face to face yi man maa gën a respecté sponsor ci làmb ji man Caatu Yaraax du ngeen ay nit di ma seedeel ne Caatu Yaraax bokk na ci mbër yi njëkk a teew contrat toog di xaar ay moromam ben mbeur gënu ma respecté sponsor. mais sa diggante ak Doudou Sané moom laa lay wax fofu contrat amu fa. dama ñëw pour motali contrat CNG mais pas contrat promoteur. contrat promoteur boo koy mottali day fekk ngeen signé seen ngeen signé sponsor ci final. ngeen signé final ngeen ngeen signé xaalis ci final wala da nga ñëw fi wala nga ñëw fee mais loolu amu fa la CNG li tax deful réaction parce que xam na ne wax dëgg yàlla ciatu yarax yooyu duru doon dem. dama fay def bu fekkoon lu ma signé la dama fay dem mais daf ma fa dara wax dëgg yalla non CNG bi CNG moy mooy li ma la wax. borom keur la dafa joxe ndigal. ñu ne ma Thiat Yaraax. tu devrais être là le 28 sinon y aura des lourdes sanctions. loolu boko ko da ngay tit ndaw bu nekk ci yoon. ndaw bu nekkee ci yoon. xam nga ñu bëgg la aj 5 ans wala 10 ans. plus ay amaanu millions. fu ma koy jëlee. te xam naa ne dama am ay soppe yi mooy topp. te tey bu ñu ayee Thiat Yaraax 10 ans 5 ans amna na ñoo xamee ne danañ la top ci làmb dama leen di soxe te dëkk bi tam duñ defal seen mbërëm mu ci benn niveau bi ñu koy pertaat il faut ñu sauver carrière lool motax ma ñëw sauver carrière bi ama ma ñaar CNG bi wax dëgg yàlla jàmm la wax ci man jàmm kese la wax ci man ah libéré na ma total mm-hmm. amuñu benn problème parce que aussi tamit euh, ay kilifa lañ rek xëy na ñu doon defar kër gi ñoom gis nañ ni dama war a ñëw ñoom loolu mooy seen gis-gis moo tax ñëw naa motali sama contrat kon aw ma leen lu may wax waa CNG ñoom ñooy suñu kilifa nañ xool lu mu gën a rafetee rek saa su nekk ñu koy doxalee beneen yoon budul man di morom bu problème amatee bu ñu xaar kenn bu ñu xaar reporter bu ñu xaar journaliste di intervenir ba pare ñoom ñuy soog a def ay réaction ñoom ñooy kilifa gi saa su nekk ni ngay amee problème bañ convoqué la ne la yaa dóor nit te tay ko wala yaa def nii te tay la sa sanction mu ngi nii nañ koy defee nii problème bu amee nañu woo nit mu toog ñu def table ronde ñu waxtaan dialogué solution dina am waaw mais wax yàlla aw ma lenn loo xamee ne mën naa leen sànni xeer dara waaw suma reliquat jot naa dagg nañ ma nag lu bëree bëri reliquat bi kay njëgu at baraat ak kaas rek xaw ma war ngaa ak laa jot xaw ma nu mu defee mais loolu dara promoteur bi makan mhm. euh, waaw makan suma frère la maa ngi koy nuyu bu baax a baax. Ah, di ko maa koy nuyu amul problème maa ngi koy nuyu bu baax di wax ne suma frère la. Hmm. makan euh, comme yàlla dogal na ci kalaafam laa génnee. Hmm. kon dama koy sant di ko gërëm euh, ginnaaw ay jàmm ndax euh, coow li bëri woon na man nee naa bu doon maag moom kese problème bi du yegg fii ndax xol bu rafet la moom toogee ci plateau bi dégg ay kàddoom boo ko laajee caat yaraax li mu lay wax leen la ñëw na matali contrat mbir mi jeex na kon du ma andi benn kàddu bu ñagas ci sama diggante ak moom maa ngi koy saluer passage di ko wax ni jàmm ci yow li nga bëgg ci yoonu làmb suñu borom defal la ko. say journée continue di neex xam nga man sa frère la yow suma grand nga. yàgg naa fi jógee ñëw gàlleem ci classe bi xam nga ñuy diisante xam nga may am ay problème sax ñëw foofu noonu ci moom comprendre nga. Hmm. kon tey bu demee nii peut-être seytaane moo ci duggoon am na loo xamee ne euh, peut-être ñoom jàppoon nañ ne ñoom ñoo ne ci dëgg man ma jàppoon ne maa ne ci dëgg yàlla dogal ne euh, affaire bi maanaam jeex na ci jàmm kon nañ continuer ci jàmm ak salaam xam ne.

caat fu mu toll euh, waaw làmb caat yaakaar naa taxaw na ba pare. Euh, mais am amaguma sañ-sañu joxe ndigal euh, parce que jox ñu ma ndigal amaguma sañ-sañu maanaam wax ko mais mën naa ne sama làmb taxaw na. signé naa contrat. waaw ah, contrat ak Alburax ah. waaw. Ah, Alburax taxaw nañ sama combat. waaw mais adversaire bi moom. mënuguma joxe mënuguma ko wax parce que joxaguñ ma ci ndigal daal. waaw effectivement bàyyil ma def rek. mais vraiment signé naa ak contrat ak Alburax. bëriwoon na ñu ay jàmbaar aussi tamit vraiment euh, taxaw nañ ma daal. fay ma xaalis bu bëri. loo xamee ne promoteur mosuma koo fay ci àdduna. vraiment li ma Alburax fay promoteur mosuma koo fay ci àdduna. te yaakaaruma ko woon sax ci ñoom. jàppoon naa ne dañ may tooñ rek. xam nga kon maa ngi koy maa ngi sant yàlla bu baax di leen sant. di wax ne waa alburaxu si tamit euh, nekkuñ fi lu dul làmb lañ fi nekkal. kii adversaire lamb lañ fi nekkal man moom amoo problème adversaire xam nga li problème bi. adversaire bi nga xam nga lamb. xam nga lamb sànq sànq ku mel ni Ama bale daf ma yee. Ah. dama dégg muy communiqué. Ah. te yàlla teg na ko ci kaw. Ah. ci VIP bi la bokk. mais mi ngi juutu ay rakam. naan bu ñu lamb boolewul tey tamit dina ñu boole suba. man ku ma lamb booleel actuellement damay bëre ak yow. maa xool benn ray mu dee wala may xool sama benn grand frère boo xamee ne bu ñëwee du indi clando ci stade bi du indi benn super ci stade bi bëgg dara tax na ma jël ko dam boobaa du ma arrangé promoteur bi te loolu du avantage promoteur bi actuellement lamb moom lamb choc la bu ñu waxante dëgg parce que adversaire gis ah, de xam naa ne yoon yoon yoon bi ma xuus ren moom mais dama ni dama ni dama ni en tout cas yon bu mo xoss ren. Ah. tarno yon de métti na trop. yon yon bu diis la jaar. mais ko ni lek avance bari wul de ndax ñom seen pexé bari la. wa xam nga tay dama lay wax dama ne la. Ah. jamono ji amul adversaire bu ñu déclaré caatu yaraax mu jaxal amateur yi. bu nga dem Alumpaaya. wa dama ni Fatma. Ah. manam jamono ji jamono ji ñoo déclaré ben adversaire bu jaaxal caatu yaraax parce que fima ma jógee lañ ma defoon. outsider lu ma defoon. ma ñew don le meilleur major la génn. d'office la dagg kon tay ak adversaire boo mën a wax rek dañuy xam ne lu lu lu lu jekk la mais soxlawuma benn pas man nañ ma jox samay morom mooy bëri rek amul problème. moom am lu mu doon leeral rek moom laa lay wax. xam nga am ma ndigal pour fi wax fi adversaire yaa ngi junjoo te boobaa damay tooñ promoteur bi xam nga. nañ ci def code waaw incha allah ba après xam naa fii ak ay secondes peut-être mën nga dégg déclaration wala yow nga génn informé loolu noonu mais amu aw ma ci ndigal daal. d' hmm, euh, <laughs> dara loolu loolu dara loolu dara man mérité naa sax bëri na. Ah, waaw loolu dara ah, en tout cas. Ah. di gërëm yëpp. te wax na ay ndaw lañ rek. Doudou maa ngi moom pare nañ mais champion yàlla na ko yàlla defal jàmm. Hmm. sànq ba ko sànni xeer man nag noonu laa mel quoi mais moom amul problème aussi ku baax la hmm. parce que contrat moo moo ko lié woon ak CNG.

xam naa tisi boobu dama koy maintenir rek wala. Ah, yow waaw noonu la demee nag. pour bëri ceeb kooku. ah pour bëri ceeb kooku noonu. Euh, man kii kese mën naa cee bëri xam nga làmb dépendre foofu amul fulla ak fayda ak jom nga xam li ngay def nekk say entraînement boo ñëwee def résultat loo mën a yaakaar yaay dimbali sa bopp d'abord boo nekkee ci entraînement xam li ngay bëgg hmm. parce que man calaf bi fu ma sumee hmm. loolu moo may dimbali parce que mbir dafa am looy manqué da nga ko uti pare boo ñëwee ñun da ngay neexe hmm. mais aussi tamit boo nekkul ci dara doo neexe ñaanal en tout cas di ko bu baakha a baax di féliciter wat nak encore une fois ki nga xamantene mom moy moom Events franchement rak ak lu meunta xew ren daño frapper fort du ma nak moy maire na wax fi dafa metti mais en tout cas dal ñewna wané wane na bopam xam nga yokku lamb ba para def fi lu fi promoteur musul def ndax tay empereur bi nga xamantene tay amna salaire tay tay wa na ci boole tam reporter yi da ci bax ñoom it ñu am salaire bàyyi diko souhaiter wala un heure ménage ah di ko ñaanal yàlla sëy bi barkeel ci barke yonent ndax ñoom yi suñuy waa la kon li wax rek dañoo bokk ñu mën a muy Seydi Hadji Malick mu nekk ñu baax nag franchement mais en tout cas daal seen salaire yooyu nañ ci boole reporter yi ndax il temps parce que nag reporter dañoo sonn parce que du ne sonn ci kii parce que ñoom ñëpp macha allah euh, ils ont bien payé mais daal sonn nañ ci li nga te mooy sur le terrain te récompense nag waaw loolu baax na reporter yi ci ñun lañ bokk ndax xam naa ne am ngeen yéenew sax tax ngeen mu bëri da ngeen ko mënul rek non am na amoon ngeen yéene bi yàlla def leen reporter kon loolu dañ koy sant yàlla euh, ñuy wax ne kon gars yi gëstu leen reporter yi wax dëgg yàlla parce que reporter yi tamit amuñu dara dañuy déplacé wu di fekk mbëri mbëri ñooy fayeeku millions yi xam nga mm-hmm. bu ñëwee sax gars yi du ñu leen jox déplacement transport mm-hmm. kuy sonn di dagal gasoil am ñëw ba sa kër nga war ko mën a bàyyi xel rawatina promoteur yi di leen gëstu reporter yi bu baax a baax parce que ñoom tamit ñoom ñooy jaay seen lamb yi quoi mm-hmm. di gërëm alburaax xam bu baax a baax a baax vraiment bàyyi suma xarit la Aziz Ali Ndiaye ñoom xarit gaay yëpp maa ngi leen di bëggee mm-hmm. mais Fatma Dia foog ma gërëm tuuti parce que am na fi ci luñ jógee bu weesoo loolu waaye raax mm-hmm. aw ma seen fay parce que seen doom leen kese la bëgg saa su nekk rek mu yëkkati drapeau bi dëkk bi di màgg ba keroog couronne roi moo ñu sabab loolu moo ñuy téye loolu moo moo tax man munuma dem matinée munuma dem soirée munuma wëri doxaani munuma taxawaale ji def dara dugg sama ruq nek samay entraînement gérer sama liggéey xam nga gérer famille bi té ndoxane mom wax dëgg yàlla kenn du ma ko waxal sax ndax man am jabar am naa soxna waaw loolu moom kenn ci taxal dara dara dara naa ci <laughs> vraiment <laughs> fan sa club caatu yaraax bi aw ma fay di leen wax ne ba keroog ba ma bëreeg ba ñëw dafa maanaam Sénégal moo gagné coupe d'Afrique dama ñëw waa dëkk bi ak ay ma zibilé xam nga sama xol sedd ma kontaan xam ne ñi fàttewuñu benn yoon di gërëm waa Kër Massar li may wax toujours rek man maa leen Kër Massar maay seen mbër am na ay champion nekk nag ay champion yu ne ñoom Boy Kaza ñoom Seydou ak yeneen gars yi ak sama boy ñoom la kii euh, ñoom Lagrose Lagrose bu Kër Massar ak gars yëpp waa Alaaji Paté Alaaji Paté xam nga Alaaji Paté sama dëkkuwaay la waaw waa Alaaji Paté maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax mais aussi tamit euh, di gërëm tamit dëkk yi ma wër yëpp ñi may ñaanal ñëpp di gërëm waa Ndengaleer waa Jilax waa Moon waa Boyar Jolofira kasamas bawal gi bawal gi bawal waaw waa Diouroup bawal gi tamit maa ngi leen di bégee ba Malifara abundo ñoom Abene ñoom ñëpp maa ngi leen di waa bawal tamit bàyyi moom mexey làmbaay Euh, Kaba Lulub Ngoxoj xam nga ba ba Réfan di gërëm waa Bambey aussi tamit ba waa Touba ñëpp maa ngi leen di bégee waa Waalo Waalo Waalo yëpp maa ngi leen di sama mbokk yi ah. lébu gi fukki penc ñaar yëpp maa ngi leen di sant bu baax Yaraax Caaroy Yoff Barña Wakaam Ngor ñëpp ak yéen maa ngi leen di bégee bu baax a baax a baax di wax na gis naa seen taxawaay ci seen doom Dalifor cité Maristes cité Elisabeth. ah Serigne Serif Ousseynou Laye tamit maa ngi koy bégee bu baax mais mention spéciale à Mohamed Dramé Mohamed Dramé borom Razan ak Wës Jambar ñaar ñooñu dama leen ni dama leen ni mentionné parce que wax dëgg yàlla ren foo leen foo tourné rek gis moo ñoom ñu ak ñoom ñaar ñu ne ci xeex bi guddee ba suba ngoon xam nga di jaayante Wës foo fekkee mu ngi ci communication yi moo tax tey ren talal dugg ci àll bi amul combat boobu léegi xam nga mais na ko gars yi jël ba tamit parce que xale la tamit dafa nekk ci yoon. mais duñ ko moytu ci ay entraînement am rek naan kii Weuz Diambar daa war am combat bu baax man nee naa leen roi des arènes bu fekkoon benn kese la ma jox ko Weuz Diambar man ma toog xaar parce que yéene bi am ci man yéene boobu la am ci moom bu doon benn koroon kese la man ma jox ko man ma toog xaar di gërëm waa Dalifor di encouragé mbëru Dalifor yëpp Moussa Ndoye maa ngi koy encouragé di wax ne ko buñ jàppaatee combat bi yàlla may ko ndam xam nga di gërëm mbëru yaraax yi tamit 100 pour cent bi maa ngi leen di sant bu baax a baax suma ñaari doomu ndey Amadou gisse ak basirou ndjay Salam ak ñom varan ñom pap Diouf ñom Mamar wa Maroc mais it diaspora bi kenn du ñoom Maroc Espagne France États-Unis Amérique Angleterre Italie ñëpp a bëggee Thiatou Yarakh xam nga gaay awma sen fay dafa melni légui may may man may man may sen lutteur quoi man may mbeur international wa vraiment di gëreum sama doomu nday Farmadia suma ma laxal xam nga sonal nga ma trop nak mais dama lay bal dama lay bal

maanaam moom amul pertement ci loolu parce que ama moo ko yóotu mu ñëw te am amoon na chance bu bëri woon couronne royale mais tey sama xol dafa sedd ba ma déggee mu communiqué ne muy Franc muy Ada Fass muy nangam nangam ñoom ñëpp mën na ñëw ñu bëri parce que bu waxee loolu rek moom am na yéene ci ay rakam te man loolu ma koy bëgg quoi parce que tamit boo nekkee Tanor di xool yenn yenn VIP di fa yamale làmb ji après day métti ci ñun ñi nga xam ne ñun ñoo leen war a approché te ñun dañoo war a bëri champion yi tey ñoom bu ñu jëlul yan la ñuy jël ñan xam nga làmb dafa métti wa di gërëm sama papa ak sama yaay di gërëm sama soxna bu baax mom aussi tamit mën na muñ trop depuis ba classe bi commencé ba légui may voyage di dem fu nek Maroc dubai Espagne mi ngi tok di xaar xam nga won ma ngoy gërëm bu baax a baax di gërëm encore euh, une fois Ahmed Dramé borom Razan di wax ne ko moom li muy taxawee combat yi mention spéciale té xamna sama prochain combat mom da ci rey boppam te dig nañu ay voyage yu bare bare bare non Ahmed dinaa leen booleeg moom loolu amul benn xaritu Fatma la moom loolu amul amul problème boobu xaritu Fatma la woo na leen mais dina leen defal ay teraanga xam naa ne ñëwagul mais di ngeen ko gis waaw loolu amul problème autorité yaraax yi yàlla xam na ne autorité yaraax yi samay nijaay ñoo fi nekk samay papa waa mairie yaraax waa mairie yaraax monsieur le maire Babacar ak ay àndandoom yëpp maa ngi leen di bégee di leen sant di leen gërëm di wax ne caatu yaraax seen doom la seen rakk vraiment di gërëm askan bi Fatma foog ma sant parce que man gars yi ñu ma defal yombul man dama toog ñu may xeexal ma toog sama roxo di gis commentaire yi sama xol sama xol di sedd Bakary Sakho moom Bakary Sakho moom mention spéciale à Bakary Sakho ak Fadam ñoom ñaar ku ci nekk xam na guerre yi ñu doon guerre yi ñu doon guerral te barki Seydina Mohamed barki waaw Fadam moom dafa so te barki alxuraan

Madame sauver journée bi ndax Bakary journée bi sauver wu motax moy mu communiquer nan mais ne du question communication sax ma mais mënu mm-hmm. innovation la rek pour monde de la lutte ñëpp bay ci xel bu baaxa baax xam ne ñun faire ñoo bokku lamb ji xam nga faramtu <laughs> jaamu ci yow gis na ne bu si la trop mais comprendre leen quoi parce que yenn saa yi xam nga. waaw la euh, maanaam émission mooy demee noonu quoi. waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm sama gars yi MK. Yaya Kara moom it borom Kaay Sañse mention spéciale à lui parce que Yaya Kara borom Kaay Sañse moom day dagg boobu day dagg yaramam ci internet bi. <laughs> di dagg yaram ci internet bi Ouskara sama boy bi ah maa ngi koy bëggee vraiment encore une fois maa ngi gërëm lamb démb lamb démb borom place yi moo wat wat bu rafet bi xam nga. moom aussi tamit day sonn ci suñu làmb maag maag wëz ak gars yi 100 pour cent yaraax di gërëm ñëpp di gërëm fukki pénc ñaar comme ni ma ko waxee di gërëm àdduna di gërëm waa Ndar di gërëm 14 régions yëpp Fatick Louga Tamba maatam Kolda gërëm naa ñëpp xam nga émission bi aussi tamit du fii la yam xam naa bientôt bu adversaire yi feeñee di nga di nga ñëw ñu waxtaanal ci ma wax la nu ma koy linjaawee incha allah nu ma koy lijjaawee non non loolu méttiwul garaawul ah. gis nañ fi lu nekk ah. yow doona nga ma fi doona nga ma fi tooñee Poutine yaa ma fi doon tooñee Poutine <laughs> yàlla baax na